أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokki jullit yi noo ngi ànd ak yéen comme niñ ko baaxoo def ci téere yàlla bi subhanahu wa taala ba tey ñu toll ci suratu nisa bi iznillahi tabaraka wa taala ci kàttanu yàlla ak ndimbaleem ñu war a jeexal tey saar bi di jël benn aaya kese muy aaya cent soixante-seize benn aaya bi sunu borom mu ngi ciy jàngal ñetti mbir ñetti yooyu bi ci njëkk mooy jawaazu suaali man laa yaalamu man yaalam lil xusuli ala al ilmi al matlubi la tey sunu aaya bi nuy jeexale téere bi saar bi mu ngi nuy jàngal daganal gi nga xam ne diine daganal na ko ku xamul mu laaj ku xamul na laaj waaye ku xamul kan lay laaj ku xam ku xamul dafa war a laaj kan lay laaj ku xam lan mooy jubluwaayu laaj bi mooy pour xam-xam génn pour ñu xam jëfe waaw ndeke kon laaj dafa am lu ko waral loolu tax borom bi di ñu wax ne fasalu ahla zikri su yemoon foofu rek waaye in kuntum la taalamuun kan ma war a laaj ku xamul lu tax muy war a laaj lil xusuli ala al ilmi al matlubi la pour li ko réer li mu réere li mu xamul ñu daal di koy génnee ñépp am ci xam-xam nit mën na laaj laaj boobu waaye am na keneen koo xam ne moom dafa xam ba pare bëgg a laaj te kontur taxul lan moo tax mooy dafa bëgg mbir mi ñu leeral ko comme ni xadisu jibril xam ngeen jibril ñëwoon na di laaj yonent bi est-ce que jibril xamul loola tax yonent bi bu muy tontu jibril la mu wax mal mas'ulu anha bi a'lami mina saa'il man da yaakaar naa ne ki ñuy laaj gënta xam kiy laaj ñoom ñaar jottante nañu wax ji saxaaba yu toog xamuñu lu xew ba waxtaan bi jeex yeneen bi ne xam ngeen ki doon laaj nga gis maandute saxaaba yi ak seen ragal yàlla su doon ñun la tey benn waay kaalawul dugg génn yu ne xam ngeen ki doon laaj di nga gis kenn ku ñu ne dafa naa diw la de lu loo wax le defe naa wóoru la wala saxaaba yi ak seen ragal yàlla ñu ne allahu wa rasuluhu aalam ah dëgg yàlla de yàlla xam ak yonentam ñoo xam koo kan la mu ne jibril moo ñëwoon di leen jàngal seen diini moo tax boo demee midin danga fay fekk bunt boo xam ne dañ ko tuddee baabu jibril ñu ne la bu jibril moo tax ñooñu am nañ xéewal de laa ilaha illa allah ama na waa sénégal xaw ma fu ñu teg seen bopp rek ñoom yaakaar nañ ne diine ji ñoo ko yenu ngay dugg jumaay midin ñu ne la bunt bii la jibril daan jaar fekk fii yonent bi mu toog fii mu toog fii jàkkaarloog moom ah waaye kon yéen am ngeen jibril fii ci biir dëkk bi am ngeen ay jibril yu ñuy dessiné jibril da doon ñëw Sénégal moo tax vraiment affaire bi du nekk kéemtaan fële boo waxee jibril soo demee mbir ñu ne bunt bi la jibril doon jaar nga ñëw Sénégal ñu ne jibril moo doon fii la ñëwoon fii toogoon na fii waaye nag am na différence de lu mooy différence bi mooy bi wér te wóor moom xam nañ ne jibril moom ñëw na Médine moom wala wala am ngeen ci sikk sàkk kenn ci yéen day sikk sàkk ne jibril wàcc na Médine ci yonent bi ah man de am naa sikk sàkk ci ne ñëw na Sénégal moom wax dëgg yàlla am naa ci sikk sàkk boobu wóoruma ndax gisuma téere téere diine yi saxal ko gisuma ko kon daganal nañ laaj kon yow mi laaj fexeel ba ñaari mbir rek na la yëkkati ci sa laaj xamoo bëgg xam ñaareel bi xam nga waaye dangaa bëgg am na ñu nekk sa wet ñoo xam ne xamuñu gis nga leen ñu def loo xam ne yow boo leen ko waxoon mu am problème nga laaj laaj bi ndax ñu reelalal leen ñu xam ne mbir mi noonu la nañu fexe daal ba laaj buñ koy génnee pour xam-xam génn tax loolu dañ ko jàng tey ci sunu aaya bi ñaareel bi mooy isbaatu wujudullahi taala aliman qadiran samian basiran aaya yi dañoo ñëw di saxal tey ne sunu boroom day subhanahu wa taala ku am la ñun jullit ñi de dañoo gëm ne yàlla moom am na te moom yàlla moomu aliman aji xam la qadiran ku mën la basira samian day dégg basir day gis loolu dañ ko gëm ndax alxuraan moo ko saxal yàlla dafa am ay melokaan asifaat melokaanam yooyu nag alxuraan moo ko saxal bépp melokaan bu alxuraan ak sunna saxal ab jullit daf ko war a nangu beneen bi mooy taqriiru nubuwatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam aayey bi ñuy jàng tey dafa ñëw di saxal nekkug yonent yonent yàlla muhammad lu tax ndax sahaaba yi ñoo koy laaj kan mooy tont sahaaba yi ñooy laaj yonent bi kan mooy tont yàlla buñ ko laajee ole moom mu tont déedéet moom du tont yàlla mooy tont loolu moo lay wan ne yonent la saxaaba yee laaj yàllaay tont di ko jaarale ci wax yoom ci alxuraanam bii nga xam ne moom la wàcc ci yonentam lool di saxal ne moom yonent bi yonent la yàllaa ko yónni yàllaa ko fi teg yónni ko moo tax bu ko gaa yi indilee lu mu xamul lu ko jaaxal yàlla ñëw leeralal ko ne ko mbir mii lii la su ko gaa yi laajee yàlla ñëw tont ñaata yes alu na ko ñoo am ci alxuraan gaa ñaa ngi lay laaj yasalunaka anil xamr wal maysir yasalunaka anil ahilla wa yasalunaka anil anfal yasalunaka anil kalala ñaata yasalunaka la benn bu ci nekk li muy tekki mooy gaañaa ngi lay laaj xul moo ciy tegu wax leen ne yàlla wax na nangam kon moom mbir mi du moom du yonent bi yàlla subhanahu wa taala la kon loolu luñ ciy jële mooy yàlla dafay saxal ne kii yonent la maa ko yónni beneen bi mbokk yi ay ñetteel bi ñuy jàngal mooy bayaanu qismatu tark man yu urisu kalaala dafa am ci diine ku ñuy tuddee kalaala ndeysaan kalaala dañ leen yàlla musal ci kalaala kalaala mooy nit koo xam ne dafa faatu amul jabar amul doom amul doomu doom bàyyiwul yaay bàyyiwul pap kooku mooy kalaala cundum mooy nit koo xam ne yow cundum bàyyiwoo dara kooku mooy kalaala ci islaam kalaala kooku la ñu yàlla di leeral tey ay mbiram moom kalaala moomu su faatoo su fekkee borom alal la li mu bàyyi alalam jooju ban taxawaay la ci islaam wax nan lañu war a séddalee alalam ji nga xam ne moom la bàyyi danañ jàng bu fekkee ne góor moo faatu walla jigéen góor googu faatu bàyyiwul loolu ñu wax lan la bàyyi benn rakk bu jigéen wala jigéen jooju moo faatu bàyyiwul dara lu dul benn frère mag la wala rak ñooñu ñaar am na islaam lu mu wax ci fekkee ku góor kee faatu rakk yu jigéen ji mu bàyyi mooy jël genn wàllu alal ji alal ji dañ koy xaaj ñaari xaaj rakk yu jigéen ji jël nis genn wàll genn wàll gi ñu seen mbokk yi nga xam ne ñoo war a doon te jege ñu jox leen ko su fekkee ñooñu ñëpp amul mu jël lépp yóbbu su fekkee ku góor la day doon moom tamit comme xale bu jigéen bi ni muy doonnee waaw su fekkente ne ki faatu ñaari rakk yu jigéen la bàyyi alal ji dañ koy xaaj ñetti xaaj ñu jox leen ñetteel bi su fekkee ki faatu dafa bàyyi ay rakk yu góor ay mag yu góor ak ay rakk yu jigéen wala ay mag yu jigéen kooku moom séddaleem yomb na jigéen góor ñaar jigéen benn li zakari mislu hazil unsayayn boobu moo gën a yomb mu ngoog kon aaya bi mbokk yi nga xam ne tey moom moo des ci saar bi loolu la ñu jàngal ba tey aaya bi dinañ ci jële dëgg-dëgg diine islaam dëgg gi mu nekk dëgg ak alquran nekkul téere boo xam ne comme ni ko gaa yi di waxee dañ ko fee teg rek pour nit ñi barkeelu dem seen yoon ñu bari ci ñun am nañu ay kaamil lan la ñuy dee kaamil yi barkeelu xëy suba rek daal di koy raay allahu akbar sama kaamil bi daal diw sa kanam ñenn ñi am nañ kaamil seen oto lañ koy teg pour lan pour oto bi du accident ñenn ñi am nañ kaamil soo demee seen kër yi ci kaw ñu def benn kii teg ko foofu pour kaamil bi lan aar kër gi ñenn ñi moom kaamil yi dañ koy jàmb di ko naan alxuraan bi ñenn ñi dañ koo takk ci ci facebook bi laa gis benn waay boo xamante ne téere yi ci ndigg li la tàmbalee ba ci ci ci dënn bi fii ci kaw xaw ma ndax gis ngeen koom déet xam naa ne kooku moom kenn ëpp koy téere moom ci Sénégal waa jël benn téere de laa ilaha illa allah téere amul njëriñ téere loolu la lay lor loolu ñu naan gàllaaj gars yi di ko takk da lay lor rek du du la jëriñ mukk wallahi da lay gàllankoor indi lay pexe indi lay seytaane indi lay jinni yàq sa digganteeg say mbokk lu jóg nga ni diw la diw la bu toogee ni may xoolee i gis nga loo kii rek nga dem uti xaa uti takk takk takk takk takk takk takk kenn du xam foo jëm moo tax ku yàlla doyul dara du la doy waa ji nga xam ne yàlla doy ko xoolal kooku may wax noonu waa jooju misaal nga xam ne li mu takk ci téere mën na cinquante benn dong waroon na koo doy waaye xoolal ku takk cinquante téere est-ce que kooku benn bi arrangé na ko est-ce que deux yi arrangé na ko est-ce que trois yi arrangé na ko ku benn doyul wallahi ku yàlla doyul dara du la doy ci àdduna loo gis di nga ko takk di nga ko naan di nga ko diwoo moo tax ku ragalul yàlla rek ragal lépp ndeysaan waaye boo ragalee yàlla yàlla mooy def lépp ragal la billaahi soo ragalee yàlla lépp ragal la waaye bis boo ñemee yàlla dara dootu la doy alxuraan mbokk yi aaya yu mel nii daf ñuy wan ne alxuraan bii bàyyiwul dara sunu dund lépp lañ leeralal xoolal ki nga xam ne sax dafa faatu bàyyiwul benn mbokk alxuraan ñëw di leeral mbilam alalam nuñ ko war a def allahu akbar kon ñun ban téere lañ am tafsir passé li ñu doon wax sunu borom leer la sunu yonante leer la sunu téere leer la xeet wi di dund ci lëndëm ummatun rabbuha nuur rasuluha nuur kitaabuhu nuur kayfa taisu fi zalaam naka la xeet woowu di dunde ci lëndëm mooy lan mooy ñàkk xam liñ am téere bi bàyyiwul dara ngeen defe ne téere bi nga xam ne bàyyiwul kii di kalaala bàyyiwu ko téere bi dina bàyyi ay ay ay constitution ak ay ay ay ay référendum téere bi dina ko bàyyi ngeen defe ne téere bu ko bàyyi de téere bi lépp lay leeral kon mbokk yi ay yu mel nii da won ni delloowaan ñu xam ne dëgg-dëgg suñu diine amul lu mu toll ci kaw suuf aka neexoon ñu xam diine ji aka neexoon ñu jàpp ci aka neexoon ñu xam diine ji ana lan moo tax mu jóg kon aaya bi moom la ñuy jeexale tey suratu nisa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألون يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها النصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تدلوا والله بكل شيء عليم سنبرم يستفتونك gaa ñaa ngi sàkku ci yow ubbee maanaam ñu ngi lay laaj ñu ngi lay wax ñu ngi ñëw ci yow di sàkku ci yow pour nga leeralal leen ci mbir mii waa ji nga xam ne moom kenn cundung la amul benn mbokk bu ko sës la ko waroon yépp dee nañ lan mooy mbiram yastaftunaka mbokk yi aay yi ñëw ci miraas ci islaam ñeenti aaya la aay yi wax ci miraas ñeenti aaya kese la ci alxuraan benn aaya bu ci njëkk dafa ñëw di leeral mbirum doom ak baay beneen bi ñëw di leeral mbirum jëkkër ak jabar beneen bi ñëw di leeral mbirum mbokk yu jigéen ak mbokk yu góor beneen bi ñëw di leeral mbiru way jege ñaale yi ay bi njëkk a ñëw di leeral mbirum baay ak doom sunu borom subhanahu wa taala moo wax ci alquran yuusikumullah fi awlaadikum li zakari mislu hazil unsayayn kooku mooy première aaya aaya boobu lu muy leeral papa ak doomam ñaareelu aaya mu ngi leeral mbirum jëkkër ak jabar yàlla nee na walakum nisfu ma taraka azwaajukum boobu jëkkër ak jabar lay leeral beneen bi ñëw di leeral mbirum yaay al ixwa daa ngi jégalu lil ummi frère yoo xam ne yaa ngi ñoom yéen a bokk yaay yàlla nee na wa in kaana rajulun yurisu kalaala aw imraa wa lahu axun aw uxt aaya boobu loolu lay leeral am na yeneen ñaari aaya yoo xam ne ñu ngi ñëw ci awalu nisa ak bii ci fin bi mooy yastaftuunaka gaa ñaa ngi lay laaj lu muy leeral fi miras al ixwa wal axawat inda mawti ahadihim walam yatruk waladan wala walada waladin benn waay moo dee bàyyiwul doom bàyyiwul sët walada walad mooy sët doomu doom mooy sët gis ngeen ndeke sët sax am na fu muy taxaw day doon su maam deewee doom nekku fi sët nekk sët day doonu maamam ndax day taxaw taxawaayu doom kon ñeenti aaya yooyu la ñoom ñoo ñëw ci mbirum miraas sunu borom ne yastaftunaka gaañaa ngi lay laaj qulillahu yuftiikum bu fekkoonte ne yonent bi la mbir yi mbiri boppam la su ko gaañi laajee moom yonent bi nu muy def ah danaan mane waaye bi ko gaañi ne bi ko yàlla ne gaañaa ngi lay laaj lan la ko wax xulillah waxal yàlla waxul moom boppam de waxal yàlla lii la leen wane suufe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom jëlul mbir yi yenu ko ne maa ko moom jox ko boppam ne man la comme day ni ko gars yi def waaw di pour ñu ngandal la pour ñu réyal la mënoon naa wax ne bu ko gars yi laajee rek mu daal di tontu rapidement waaye xoolal keroog ba ko yàlla di mere sax te waxul insha allah dañ ko laajee ci ñetti mbir bu njëkk bi dañ ko laajoon ci ruu ñaareel bi ñu laaj ko zilqarnayn mu ne dem leen après suba ma wax leen ko waxul insha allah jibril toog weer ñëwul ci moom aaya bi bi mu wàccee yàlla di ko yedd lan la ko wax bul waxati benn mbir suba lu dul nga ni bu neexee yàlla bul waxati benn mbir suba lu dul nga wax su neexee yàlla kon moo tax moom yonent sallallahu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fépp ko yàlla yeddee joxoñ ko góor góorlu na fa ca des ba loolu amatul mooy woon ne alxuraan bi mooy wàcc ci moom moo ko defar moo tax yaay Aïcha ne su ngeen bëggee xam kan mooy yonent bi mu ne jàngaleen alxuraan suñ jàngee alxuraan rek ñu xam yonent bi mooy kan moo tax ku alxuraan defarul dara mënu la defar moo tax suñu àdduna bi du mun a baax jullit yi duñu mun a baax lu dul ñu ñëw ci alxuraan ndax alxuraan rek moo leen mun a defar amul lenn lu nu mun a defar mbokk yi fii loi yi yéeg yii ñuy tëral ak yii ñuy wax ak tus duñu baax ndax du dëgg te ñëwul pour baaxal nit waaye dafa ñëw pour yàq xoolal loi boo xam dafa ñëw di aar góor ak jigéen ñu sëy boo waxee ñu ne droit de l'homme la ku nekk nan la bàyyi nga life sa life quoi nga dund sa town nga dund ni mu la neexee loolu ban diine la ku nekk na la bàyyi nga dund nu mu la neexee ku nekk na nga am liberté loolu amul fenn man ak yow bu ndëkkee ci kër ma yor samay sabar di tëgg nga nekk sa néeg bëgg a nelaw ñu ne man am naa droit naa tëgg samay tëgg kii tamit am na droit nelaw war ta dégg mbir mi acca bismillah léegi yow am nga droit tëgg wala man am naa droit nelaw bëgguma dégg sabar yi ñun ñaar kan moo nuy àtte est-ce que loolu loi la ban loi moo ñëw fekk yàlla ni mu tërale dundin wii waaye gis nga yahud yeeg nasaraan yeeg noonu yàlla yi li ma benn waaye doon wax mu ne ma yéen dundu leen Amérique ma ne ko waaw mu ne ma américain mooy koo xam ne lu yàlla wax danaan daf koy contre dëgg la lu yàlla wax ne lii la ñoom dañu ñëw ne non lii yàlla wax ne mënul ta nekk nañ ko def neneen góor moo war a arrijaalu qawaamuuna ala nisa góor mooy kilifa kër ñu ne non non jigéen mooy nekk kilifa góor ak jigéen ñooy sëy ñu ne góor ak góor mën na ñoo sëy na góor gi dem ñu opéré ko dagg sexe bi pikiir ko ween yi génn ñu jël bakkan bi guddal ko loolu yëpp lu ko fi jar yow yàllaa la bind xool la ne góor ngay nekk mu jël say organe def ko organe yi góor mu jël kee def ko jigéen yàlla moo wax ci quran fi ay suratin ma shaa rakabak ci melokaan bu ma neex man yàlla laa xool bind la nangul loolu ki nga xam ne yàlla da koo bind ne ko nii ngay mel mu ne meluma noonu est-ce que gëm na yàlla boog mën na gëm yàlla kooku est-ce que am na diine waaw léegi bu fekkee ne ñooñu nga xam ne amuñu diine ñooñu loolu lañ bëgg a dund est-ce que ñun ñi nga xam ne am nañu diine ñun yàlla li mu wax loolu lañ war a dund ñun am nañ droit topp ñee ah ba ñu waxee ne ñun ay jullit lañ laa wax nag Sénégal lan ngeen wax ay jullit ngeen wala yahud ngeen dégguma dara de ay jullit lañ kon naka lañ mën a nangoo ay góor jigéen naka lañ mën a nangoo ay naka lañ mën a nangoo ay naka lañ mën a nangoo ay ci sunuy loi naka lañ mën a nangoo nu nuy àtte sans islam naka la ñuy mën a nangoo assemblée boo xam ne président boo xam ne bu ñu koy fal dafay taxaw rek mu ne je jure wala du loolu lay def je jure ah je jure au quoi ci lan ngay waat ci lan est-ce que daf ceet dañoo teg téere alxuraan mu teg ci wala dañoo teg bible mu teg ci ci loxo ci air bi rek moo tax gis nga am ngeen problème bu rëy yéen ñii am ngeen problème problème bu rëy ngeen am ndax ma leen de problème bu rëy ngeen am ci lan la waajiwaat loo xam ne dañ dañ cee war a suba nga dindi waat ko nga ni li ñu waatoon ma dindi ko allahu akbar ak ñoo wuuteeg Mouhamad Mursi keroog bañ koy waarloo ci Égypte yi alxuraan la waat de fan yii sax am na benn juge Amérique américaine premier juge noir xaw ma américaine biñ koy indilee bible dana leen mukk mukk mukk man julli la alxuraan rek ngeen may indil ma waat allahu akbar ñun sax am nañ fulla waaye ñun ñun sax am nañu fulla laa wax xoolal te jigéen la boo xoolee Facebook bi photo yi mu ngi bëgg a tas Facebook bi ak alxuraan bi ñu ko tegal muy waat nit dafa war a am pas-pas nit dafa war a am ngëm-ngëm mais ñun fii dañoo gëmul coow li moo bari mais gëmuñu loolu mooy wax bi yonente alayhi salaatu salaam amul lu mu waxal alxuraan ci boppam amul lu mu nëbb aussi su fekkoon ne yonente day nëbb alxuraan wala am lu muy génne wala am lu muy bàyyi kon am na aaya yoo xam ne du ko génne daf koy effacé parce que aaya dafa ñëw di dal ci kawam ah comme abasa wa tawalla comme walaw taqawala alayna baad al aqawil la axasna minhu bil yamin comme suratul ahzab kon du ko génne du koy nëbb allahu akbar comme ya ya ayuha nabi lima tuharrimu ma ahalla allahu lak kon yonent day jël aaya yooyu effacé ko ndeysaan pour nit ñi duñ ko gis waaye gis nga mbir mi jógewul ci moom mbirum yàlla subhanahu wa taala la yàlla ne ko gaañaa ngi lay laaj waaye tontul ne leen qulillahu yuftikum yàllaa leen di ubbee fil kalaala ci waa ji nga xam ne ah dafa faatu bi mu faatoo bàyyiwul doom wala walada waladin bàyyiwul doomu doom wa innama yatruk axan aw uxtan li mu bàyyi mooy frère wala sœur benn mu bàyyi ci ñaar ñi kenn wala mu bàyyi leen ñoom ñaar ñëpp wala mu bàyyi ay frère wala mu bàyyi ay sœur wala mu bàyyi ay sœuri kese wala mu bàyyi ay góori kese kon kalaala xam ngeen mooy kan mbokk yi aaya bi moom la ñuy tuddee aayatul kalaala wala ñu tuddee ko aayatu sayf aaya tàngaay ndax ci tàngaay la wàcc fekk Omar ibnul Xataab doon laaj yonent bi ci mbirum kalaa la koo xam ne dafa faatu bàyyiwul dara di ci laaj yonent bi di ci laaj yonent bi taral laaj gi ba yonent bi jël baaraamam sax jam ko ci dënnam bi ne ko Omar xanaa aaya tàngaay du la doy mooy aayatu sayf mooy aaya bi yonent bi ne ko yaa Umar allah takfiika ayatu sayf borom bi ne subhanahu wa taala in umruun halaka su fekkee benn waay dafa faatu fii baatu halaka lim fii tekki mooy al mawt al wafaat mooy dee waaye baat bi li muy tekki ci arab mooy alkande nit dafa alku dee alkande alkande la de wallahi ku mu dal sa kaw alku nga yàlla ne inumru un halaka su fekkee benn waay dafa faatu laysa lahu walad amul doom waaye walahu uxtun am na sœur rakkam bu jigéen la bàyyi alalam bi mu bàyyi falaha nisf day jël genn wàllu alal mbokk yi laaj bi may laaj fii mooy waa ji faatu bàyyi rakkam bu jigéen rakkam bu jigéen bi daal di jël genn wàllu alal ji lu lu ko waral lu ko waral ah bu njëkk bi très bien xalifa mooy amul amul mbokk yu fi nekk yu mu war a bokkal alal bi amul benn frère am bu fi nekk moom kenn na fi nekk ci ndum moom mooy bu njëkk ñaareel adamul musaarak amu fi ñaar amu fi ñett amul ku mu bokkal ñeent ñett amul kuy doon du doom du doomu doom du baay du dara amul ndeysaan papa nekk fi mooy ñeenteel bi papa nekk fi dara nekk fi amul maam maam sax nekku fi su boobaa moom ndaw si dañuy xaaj alal ji ñaari xaaj ñu jox ko genn wàll gi loolu la yàlla wax loolu mooy àtte yàlla wa huwa yarisuha waaye bu doon ku góor ki tamit noonu la bu doon ku jigéen ki tamit moo dee ku góor ki da koy donnu comme ni ko ndaw si doon ne ku góor ki tamit wa huwa yarisuha day donnu ndaw si in lam yakun laha walad kañ la góor gi di doon ndaw si su fekkee doom nekku fii ndaw si bu amee doom rek frère am bi dàqu na bu ndaw si amul doom frère am taxaw na day doon comme moom ni muy doonee frère am bi démb ki faatu woon ku góor la bàyyiwul dara waaye lu mu bàyyi mooy li mbaay mooy waaye nekku leen ku jigéen la fi bàyyi sëram sër bi mun a nekk magam mun a nekk rakkam kooku lan lay jël ci alal yi genn wàllu nisf tey nag ki faatu jigéen la boo xam ne amul doom ku góor la bàyyi ku góor ki daf koy doon wala du ko doon ah da koy doon moom la aaya bi yàlla di wax ni wa huwa yarisuha in lam yakun laha walad moom ku góor ki day doon bu fekkee ndaw si amul doom di ngeen mu ne fa in kaana tas na nas na tey ni bu fekkee ne ñaari jigéen nag ñoo fi des ki góor ki dafa faatu wallaay wallaay kii ma dama soj rek bismillah kan moo faatu ku góor mu bàyyi fi ñaari rakk yi jigéen ñoom ñaar lu ñu jël yàlla nee na falahuma sulusaani dañuy jël ñetteelu xaaj bi dañu la xaaj alal bi ñett ñu jël ñetteel mimma tarak ci waajalam bàyyi ndeysaan wala séddale yàlla li muy séddale yàlla tey problème bi ñu am sulusaani ah deux tiers yi barakallahu fikum sulusaani deux tiers yi tey problème bi ñu am miraas ci Sénégal soo demee tribunal da ngay dégg juge ñu ne la ñaari dossier ñoo fi ëpp problème bi ci njëkk mooy sëy ñaareel bi mooy miraas da ngay gis ay jullit de yu ñu miraas seen papa ba pare ñu jox jigéen benn góor ñaar nga gis gaane d'accord uñ de ñoo góor ñooy tolloo dem leen police parce que xam nañ ne bu ñu demee fee wax naa leen sànq ne ñee dañoo contre yàlla.
man sama maam jaay na 25 ans sama xaalis ñoom jaay ay lébu.
waaw tey dañoo mujj a séddoo nii rek arrangement.
kenn gis nga.
tribunal bu réglé man bu laa fi xam ne.
mu nga gis nga dégg ngeen loolu bi day teg rek avocat bi di lekk di lekk vocation.
gis ngeen waaw parce que ku suñu nanguwul li yàlla wax doy leen mooy lii la comme yàlla li mu wax doy leen nanguwuñ ko Sénégal problème bi yëpp tribunal miraas ak a bëri dossier tribunal daanaka mën nga ne di nga gis comme kii li mu wax nii xoolal li mu wax am na ñoo xam ne ëpp nañ loolu seen kër yaa ngi fii di nga gis kër goo xam ne daanaka ba nga dëkkee ci koñ bi ba lay kër gaa ngi fi kenn dëkku ci kër ga daanu na ba dara desatu fa léegi sax nit ñi fa la ñuy defee seen lépp lu ko waral mooy ña ko waroon doon sax léegi dee nañ dañuy dem dem ba xam nga lu ñuy wax kër gi jinne fi nekk fii benn jinne nekku fa dañoo bañoon li yàlla wax ñu am problème ña ko waroon doon sax màgget nañ ba dee doom yi judd nañ xamuñu woon sax ndax mbir moom ma nga foofu lu ko waral mooy bañ li yàlla wax loolu beneen bi gën a garaaw Sénégal da ngay gis papa ju faatu bàyyi ñetti jabar ñoom ñëpp ñu ne non non buñ jaay kër gi nañ fi nekk rek en famille quoi nañ dund nii ñu commencé di dund ñoom ñoom ñu màgg ku nekk takk jabar ñu am ay doom kër gi xat la ilaha illallah paa yi dee bàyyi xale yi du ñu xamati problème bi nun koy réglé loolu musiba la gars yi yàlla moo ne ku dee rek nañ ko weer xam ngeen weer mooy lan ah dañuy génne li nga am ci ci ci ëtt bi dañ laa war a miraas wala ñun ñoo ëpp yàlla yërmande yàlla mi ne nañu miraas waa ji léegi ñun ñu ne duñ ko miraas non paa bi nee na bu ma kenn miraas quoi nañ teg paa bi dafa cee mun dara lu ci yoonam da ngay gis seen saa yi borom kër guy dee nag kër gi bu ko kenn jaay xam nga luñ ko war a wax kër gi kay moom xam nga lu tax duñ ko jaay mun naa ñu ne ko bul dee bul dee rek de papa boo dee rek kër gi dañ koy jaay ndax kër gi nekk sa kër sunu kër la moom ko di li ngay wax bu ko kenn def mooy loo moom lii yàllaa ko moom yàlla mu ne ku dee nii la léegi ñun ñu ne ñun ñëpp yàlla yërmande moo tax ñu am problème bu dul jeex ci biir dëkk bi ay kër di nga gis benn kër boo xam ne fii juróom ñaar fukki at kër gaa nga fi kenn xamatul kër gi nuñ koy lijjantee lu waral loolu lépp mooy ñàkk tënku ci atte yàlla yàlla moo nu ëpp yërmande yàlla moo ne ku dee sa alal moomatoo ko say mbokk ñoo ko moom ñi ci gën a yey mooy say doom ak say soxna su fi ñooñu nekkatul say mbokk ñi nga bokkal deret góor ak jigéen su fi ñooñu nekkatul say sët su fi ba keroog mbir yi di jeex yàlla def na ci téeréem bi kii dee am na ñu koy doon su benn jullit dee woon France jullit kenn xamul mbokkam yi kenn xamul lan la xam ngeen alalam nu ñu koy def dañ koy indil jullit yi nga xam ne ñoo jege Sénégal wala feneen ñu jox leen ko ñu donn ko ñooñ ñoo koy doon laa yarisul kaafir al muslim laa yarisul muslim al kaafir jullit du donn jullit donn yéeféer de sa papa bu dee yéeféer doo ko doon yow boo dee yéeféer sa papa bu dee jullit du la doon jullit mooy doon jullit ku génn lislaam pare nañ ci yow kenn dootu la doon sa alal kon alal ji alalu yàlla la yàlla moom moo rëdd nuñ koy def ñun buñ ci am yërmande waaw bu ñu jéem a dégg fi nit ñi li ñuy wax waaw kër gi nañ ko bàyyi nii en famille dund ensemble xam nga loolu lan la ñetti nit a fi nekk rek te màggagu leen amu leen ay jabar amu leen ay doom yéen ñett ñi bu ngeen màggee taawu kër gi takk ñaari jabar te kër gi ñeenti néeg a fi nekk fu ngeen di dëkk xam nga fu muy mujj xam nga léegi kër gi dañoo bari man dama war a laaj sam wàll sax dem parce que ñun ñoo koy def problème yi am yëpp ñun la kër gi fu muy mujj ku xëy suba kii teg fii cin kii teg fii cin kii teg fii cin ñetti cin yu dend suñu yekkee ku nekk dugg sa biir nii kenn du wax sa morom ku nekk di xaar man moom moo njëkk ne wàllam la soxla kon bëggoon naa ko bu yàgg sax mais damaa noppi parce que xam ngeen ne li ngeen bëggoon soom bi du dëgg xamoon ngeen ne bu ngeen ko sombee itam du ngeen ko naan yàlla nu ëpp yërmande moo tax yàlla mu ne nanu nanu miraas alal ji beneen bi ci miraas ba tey ay tappale da cee nekk am na fi paa yoo xam ne nekk wuñu fi lu dul ku dee rek ñu jaay sa kër ne dañuy miraas ñoom it parce que miraas bi dañ ciy am am na association miraas nekkee wuñu fi lu dul 10 pour cent 5000 bu nekk 100 yu nekk am nañ ci 10 francs ci alalu waa ji waa ji bu amee 1 million 100 francs bu nekk ñu am ci 10 francs ñaata la ah 100000 bu waa ji amee 10 millions gis nga ñeenti nit bu ñu defee mirage boobu ñu jox leen un million seen ceeb day tooy wala du tooy am na ci ñoo xam ne moom duñ def sax loolu xam nga lu ñu def comme benn waaye des parcelles sëriñam ñëw ñu mirage ba pare ñu doon mirage mirage ba pare di jël 400000 ñu ne lii ñu doon mirage la ak sëriñ bi ah comme day ñibbi dëkk ba bëgguma wax turu dëkk bi sori jëndal ko ci gasoil ak mbokk yi ñu jox leen ci sëriñ mu ne teg leen ko fii gars yi daa teg mu jël 300000 def ci poche bi 50000 yi ana ñu doon mirage ñu ne mu ne téere ana mbokk yi ñu ne sëriñ la ngaan kii maay sëriñam ngeen naan waay maay sëriñam jël 300000 fes dem yoonam bàyyi gars yi toog ku nekk naan ci ah lii de ah man leen ñàkk fayda rek 300000 dañ naan la kaj poñe leen a tegal fii moomoo ko waaye mais nit ñi dañoo ñàkk fayda waaw moo tax nit ñi di dund seen kaw ci loo xam ne du farata du sunna du diine teguwul fenn ci diine amul tegu fu mu tegu ñaar moom ci wàllu miraas man damay miraas dama ko jàng mën ko damay def fi sabilillah alhamdulillah su ma leen ko defalee lu ngeen ma jox baax na am na ñoo xam ne ñoo ne danga may fay balaa nga ciy dugg waxal mu leer ñaar ñooñu koo ciy jël waxal mu leer su fekkee ñi fayeeku la am nañ droit ne la 10 pour cent buñ la baalee nag baax na balaa caag nag ngay dem di uti koo xamante ne day lekk xaalis nga jël benn jullit bu ragal yàlla su ngeen pare ngeen xool yéen ñi ñëpp fi ngeen waroon fay 1 million ngeen jox ko fa 500000 la leen di delluwaat ci mbokk yi wala wala voilà waaye nit ñi duñ def noonu dañuy fekk ay paa yoo xam ne ñoo gën a foqale ci koñ bi ut seen association Miraas teg ko bu ñëwee lu nekk ñu ne la ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko moom noonu la ñuy def ba foqarti kër gi foqarti alal ji lekk alal ji doom yi sax ñetti fan xale yi commencé toltolaan ci mbedd yi ak bëri ay xale yu toltolaan ci mbedd yeeg ay xale yu nekk fàqmaan ay xale ay xale ay xale dara wàllu ko ak ay jigéen yu souffrir dara wàllu ko loolu alal ja leen seen bàyyi bàyyi wala nit ñi lekk waaw am na borom kër yoo xam bu ñu dee rek mbokk yi ñëw beneen bi gën a garaaw mooy tey ku yeboo di leeral sa ginnaaw am na ñoo xam ne da ngay dee rek ñoo ne yoral na ma 10 millions de ah fu ñu ko bind non maa ngi moom ak yàlla la su ngeen bëggee ngeen fay bu ngeen bëggul ngeen bàyyi ah bañ dem ci yàlla di leen tiital nag menacé man boo ma waxee loolu man la waaw yaa ngi moom la dem leen ci yàlla ngeen demee yéen ñaar ngeen réglé ko foofu parce que nit ñi ñoo ragal beneen bi mooy da ngay dee rek benn jigéen ñëw jigéen sa jabar labaloon naa ko barki démb cinq cent mille gis nga de te du dëgg bépp bor boo xam ne amul seede amul fuñ ko bind su la neexee nga bañ a fay su la nee lebaloon naa ko nga ni ko yaa ak moom la ëllëg yaa ak moom ngeen dem ci yàlla ngeen réglé ko am na sama benn xarit day ñëw fii dar si xaw ma ndax mu ngi fi toog papaam dafa génn àdduna benn waaye lang fa leen ne yoral na ma 10 millions parce que xam na ne papa bi am na xaalis 10 millions bu ñu ko génnee ci miraas lu ciy des ah xoolal ñeme yàlla googu jigéen ñi noonu la ñuy def seen jëkkër day dee ñu ne terrain bi ba mu koy jënd maa ngi moom ñoo ko disé fekk du dëgg ar bagage yi ci kër gi maa ko moom fekk du dëgg nit ñi li leen alal jaral kii jënd kër gi jënd alal ji dee yow nga bugg cee taq di nga dee bàyyi ko bu ngeen demee ngeen layoo ko ci yàlla yooyu dafa am tey ci dëkk bi man dama koy fekkee dañ lay woo ci benn mirage nga ñëw toog ndaw si ne maa moom li maa moom li maa moom li maa moom li maa moom li ba mu des caayo yu ci lim yi ñu mu ne loolu la moom nga jaaxle lii liñ koy séddalee nit soo ne ku ko bëgg ñëpp jóg dem seen yoon ah ndaw si ne ne moom moom la lu fi nit ñi def luñ ci fa soo nee kër gi ñu ne bu ñu koy jënd maa moom ñoo ko disee nga ni bagage yi ñu ne moo ko ñoo ko disee wala am na coo xam ne sax moomu ko maa ko moom dee na nag di jéem a menacé nit ñi nag dee na nag danaa ko fekki waaye su ko defee nit ñi daal di dawal sentiment ah waaw comme dégg ngeen loolu léegi dara desu fi lu dul ñeenti mbax na yi ak ñaari montre yu paan yi portable baa ngi nii moom amul réseau luñ koy dee luñ koy dee loolu luñ koy dee kan ma koy jël ku defee li am valeur yëpp ñu denc ko kon nit day bind moo tax yonent bi di wax ne nit ngay bind testament am wax ñi nga yoreel bor wax ñi la yoreel wax ñi nga yoreel waaw wax affaire yi mu leer beneen bi mooy nit ñi war nañu ragal yàlla góor war na ragal yàlla ci soxnaam bi muy dundal wala ay soxnaam jigéen tamit war na ragal yàlla jëkkëram dee nga nit moom ma fi dara moom moom lépp ñu séddale ko njaboot gi waaye am mujj rek tax nga ni maa moom nangam maa moom nangam fële lële lële lële këre lële pour ñii duñu am dara loolu rek moo koy waral tëdd ci affaire yi yooyu waaye loo ci tëdd ëllëg di nga dem ci kanamu yàlla loo fi jël di nga ko fi bàyyi dem ci kanamu yàlla ku weddi loolu jàngal histoire qaaruun inna qaaruuna kaana min qawmi muusa fa baga alayhim wa aataynaahu min alkunuuzi ma inna mafatihu la tanu voilà yàlla nee na qaaruna li ma ko mayoon magasin yi caabi yi nga xam ne moo daan caabi yi dañoo bëri ba ay gëléem ñoo koy sëf di ko yóbbu loolu ñun am nañ ko kan moo fi am ay caabi magasin yoo xam ne te dafa am xaalis am alal ba ay gëléem la ñuy sëf ay 4x4 la ñuy def ci caabi ah ay 4x4 la ñuy sol caabi yi 4x4 yi di dem ak moom loolu la gisagu leen ko ci àddina bi qaaruna foofu la tolloon ana mu tey ana alal ja ana mu moom kon jeex na kon mbir yaa ngi noonu mbokk yi sunu borom ne wa in kaanu ixwa rijaalan wa nisaan bu fekkee ne ay mbokk lañ yu góor ak yu jigéen waa ji dafa faatu waaye bàyyi na ay mag yu góor ay rakk yu jigéen wala ay rakk yu jigéen wala ay rakk yu góor almuhim bàyyi na ay mbokk góor ak jigéen su boobaa lan la ñuy def fa li zakari mislu hazil unsayayni góor gu nekk dana am cëru ñaar ci jigéen maanaam góor day jël ñaar jigéen jël benn loolu moom ñoom moo gën a yomb mooy at mooy mooy miraas bu njëkk ba rek jigéen benn góor ñaar parce que waa ji faatu bàyyiwul doom bàyyiwul doomu doom bàyyiwul dara lan la bàyyi ay mbokk yu góor ak ay mbokk yu jigéen foofu sunu diine lum ñu wax li zakari mislu hazil unsayayn sunu borom ne yubayinu llahu lakum yàllaa ngi leeralal yàllaa ngi leen di leeralal lu tax yow yàlla nga ni leeralal mu ne anta dillu balaa ngeen di sànku gis ngeen yàllaa ngi leen di leeralal téeréem bii balaa ngeen di alku balaa ngeen di jàdd balaa ngeen def leneen lu ñu leen santul balaa ngeen jël alal ji ne waa ji comme amul mbokk rek ñun la dëkkaloon waaw déedéet ku nekk soo faatoo ñi gën a jege al aqrabu awla sunu benn yaay dafa gaañu tey ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm ñu wooñu ñu dem buñ demee fekk jigéen ñi sang nañ ko ba pare ba muur ko ñu ne ñu dugg leen ngeen teg ko ci kees gi ma dugg doomam dugg ak beneen doomam ma xëcc bunt bi ne dama koy tëj parce que keneen amul droit tiim ndaw si ku dee ku ne al aqrabu awla ku gën a jege moo ci yey benn waay jàpp ci bunt bi ne damay dugg ma xool ko xàmmewuma ko ci famille bi ma ne ko doo dugg mu ne damay dugg kay doom ji ne eh, moom moo yar kii de ma ne ko lool lool du- lool du lay sariya waxul lool de moo la yar kese kii jigéen la mu ne damay dugg de ma ubbi buntu bi ne ko dugal islaam waxul ku la def doom wala ku la baayoo ku la loolu sax islaam daf ko dàq loolu la yeneen defoon Zayd ah daal di koy doomoo lan la yàlla wàcc aaya alquran di ko dàq uduuhum li abaihim da ngeen leen di woo ci seeni turu papa nit ku dee say mbokk ñoo ci gën a yay beneen bi gën a garaaw mooy jigéen bu faatoo képp koo xam ne mën nga kaa takk amoo droit tiim ko amoo droit jàpp ci moom laal ko amoo droit kees giñ ko dugal sax nga laal kees gi kees gi laa wax de waxuma darab bi moom ñu ko sàngee waxuma nga laal yaramam moom kees giñ ko dugal yow amoo droit laal ko suñ ko doon yóbbu comme léegi li xew da nga gis ñu yóbbu rek jàpp leen jàpp leen gaa yi birdi birdi ku nekk di jéem a jaay ne sama waay la woon wala sama nanga la woon loolu am am ci droit kenn amul droit laal ko ba ba ñu egg armeel yi bu mën koy suul kenn amul droit di laal ndax islam dafa fiir l'islam dafa fiir maadaama yow mën nga koo takk su ma nee mën nga koo takk nag mooy lien boo xam ne daf la araam doxu fi kenn mun na ne waaye kii di meer xale bu góor mun na takk meer di wala xale bu góor mun na takk meer ñun ñu toog fii genn wàll gi bu ñu demoon France gis fa màggee du jigéen dañ leen takk di tax fi duñ takk ay meer rek mooy meer yi dañoo ñuul mel ni ñun fii amuñ dara ndaxuma la de ñu ëpp ci ñun fi bu ñu demoon France léegi gis màgget bu jigéen bu am 70 ans bu la nee mooy ma bëgg nga ni ko y a pas de problème madame waaw ah wala wax la wax leen dëgg fii gars yi luñ fi indi ah moo kan la suñ borom ne yubayinu llahu lakum yàllaa ngi leen di leeralal di leen faram-fàcceel aaya yi mbokk yi anta dillu balaa ngeen a sànku ni ngeen yëg ne wallahu seen boroom alimun bi kulli shay lépp la xam aaya bi jar naa taxaw de sayid xawa rahimahullah nee na bu ngeen jàngee alxuraan bàyyi leen xel aaya yi fu ñu yem aaya bi tey fan la yem yàlla nee na lépp laa xam allahu alimun bi kulli shay wallahu bi kulli shayin alim lépp lu mu mën a doon yàlla nee na xam naa ko allahu akbar wallahu bi kulli shayin alim yàlla nee na lépp laa xam ku am buur boo xam ne lépp la xam ndax sa mbir yow am na ti la lu nëbbu ndax yow war nga am loo làqati ndax yow warati nga am problème yàlla nee na wallahu bi kulli shay'in alim kan mooy président réew mi est-ce que lépp la xam ci réew mi ah ndeysaan yow yaay kilifa ci biir kër gi kër gi yaa jënd suuf si yaa jënd terrain bi yaa ko tabax yaa fi indi soxna am fi doom def fi lépp waaye kër gi sax am na loo fi xamul d'accord ngeen ba bis rek ñu ne la nga ni inna lillahi li am na ci kër gi ñi ne la moo lii de fukki at mu ngi ci kër gi nga xam paa bi xam ndax xamuloo ne lii a ngi ci kër gi allahu akbar te kër rek xool ni mu tuutee kër atelier bi sax bi ngay atelier bi nga jiite yenn saa yi am lu fi xam doo xam atelier bi kër gi xool ni mu tuutee jëlal dëkk bi chef de quartier bi ndax xam na lépp ci kër ja quartier bi imam bi xam na lépp ah jëlal maire bi maire bi xam na lépp ngay topp ko ba ci président ndax xam na lépp xoola ñii li ñu yor ni mu tuuti te xamuñu lépp yàlla moom lan la yor ah yàlla lan la yor ba pare wallahu bi kulli shay'in alim moom lépp la xam xool ni mu yor ni mu toll ba pare lépp la xam allahu akbar ñu yaakaar ne fala mu ne yaalamu xaainata al ayun wa ma tuxfi sudur xol yi li ñuy xalaat sax waa jooju toog foofu naan waaye oustaz bu paree tafsir booy damay bonde ji quoi waaye damay langi quoi yàlla xam na xam nga tey la samedi tafsir bi pare damay langi di ko wax ci xolam oustaz gaal nga pare waaye oustaz gaal nga pare léeg-léeg ñu mu def portable yu silencieux quoi affaire bi ne crit mu xool gis turu Aïda mu daal di koy dóor benn message ne ko amul problème maa ngi oustaz quoi léegi xam naa léegi mu pare kooku yàlla xam na ko wallahu bi kulli shay'in yaalamu xaainatal ayun bët yi nga xam ne dañuy wor sax bët yi wor yàlla mu ne xam naa bët yooyu xool bi ñu xool xam naa lu ñu lu ñu xool lan la xool yi li ñu nëbb yàlla mu ne xam naa ko iblis lu waxoon yàlla daaneel ko usjudu sujjóot leen mun a lànk taxaw bi ko yàlla laajee lu mu wax ana xayrun minhu yàlla xamoon na ko xamoon na ne bu dee sujjóot leen am na kuy bañ moo tax mu ne sujjóot leen pour mu leer yàlla yaalamu xaainatal ayun wa ma tux fi sudur yàlla ayna ma takunu wa huwa maakum fu ngeen nekk mu ngi ànd ak yéen maa yakunu min najwa salaasa illa wa huwa ñetti nit du ñu dox lu dul yàlla ñeenteel na leen bu ñu ñeentee yàlla nu ñu toll ci néew wala ñu ëpp yàlla xam nga ndeysaan ndeysaan ndeysaan kon nañu xam yàlla saa yoo wéete di def dara bul wax wéet naa kenn gisuma waaye waxal alam yaalam bi anna allaha yara yàlla mu ngi may gis mbokk yi man mii su ma doon def dara lu bon ma gis kenn ci yéen ñii di ma xool ndax dama koy def ah ndax dama koy def ndax dama koy def kenn ci yéen bu doon def lu bon mu jékki-jékki gis ma may ñëw nu muy def léeg-léeg sax ci koñ yi ci koñ yi dañuy benn waaye di tux cigarette taal rek tëf gestu nii la rek daan ne ko tëf waaye aj kii bi daa di waay prise cigarette bi man gaa yi garaaw nañ de ne ko tël fële waaw yow fekk gis nga ko bu yàgg mais nga bàyyi ko ci biir quoi yenn saa yi waa ji xëcc fur mu séen la mu xam ne bu ko génnee gis nga ko mu aj ko laa la wax taf waaye te te te te denc ko laa la wax ci xam fu ñu koy dugal nag te gars yi garaaw nañ de dañ koy aj te xam nga fu ci biir bopp lañ koy dugal xaw ma dañ koy wan waaye sagaar bi du génn de ba nga sori nga gës gis waa ji naan ko fu xaw naa dee saa su taxawee fii si woon xaw naa dee fekk waaw yow looy yaa ngi nëbbatu nit doon nëbbatu doon nëbbatu yàlla yow yaa ngi nëbbatu nit nit ki mënul loolu dërëm yaa ngi rus nit ki te rusoo yàlla allahu akbar moo tax yow mal xiyaam yàlla lu muy wax su nit taxawee ci kanam yàlla mu ne nit yow yaa def lii mu ne defuma ko ah yàlla mu ne defa ko mu ne defuma ko nit ak mun a laay nit moo dëgër fit yàlla mu ne ko léegi nañu indi seede mu ne waaw waaye d'accord naa kenn du ma seede ku dul sama bopp encore ndax yow koo fi indi seede yow lay faral ndax gars yi dañ laa ragal yàlla mu ne ah mu ne waaw léegi nag mu ne may seede sama bopp yàlla mu ne d'accord bismillah ñu ne loxo kaay rek loxo ne ana lil xaraami lamastu li araamoon maa ko laal doomu adama am mbetteel ala ne al yawma naxtimu ala afayim wa tukallimuna wa tashhadu bët ne ana lil xaraami nazartu li araamoon maa ko doon xool gémmiñ ne ala lil xaraami akaltu li araamoon maa ko doon lekk tànk ne ana lil xaraami machayit fi araamoon man mi maa fa doon dem malaaka bu nekk ndeyjoor daan ne ana katabtu maa ko bind malaaka bi nekk càmmoñ ne ana shahadtu maa ko fekke woon maa doon seede bi yàlla mu ne laqad araftu wa shatartu xamoon naa ko xamoon naa kii bandi la waaye dama ko nëbbaloon waaye tey fii ci àllaaxira laqad istadda gadabi ala man qalla xayaauhu alayya tey sama mer dina nekk ci képp koo xam ne dangaa ragaloon nit ñi ñeme ma man yàlla yastaxfuna min annaas wala yastaxfuna min allah wa huwa maahum tey sama mer dinaa ko teg ci képp koo xam ne nit ñi nga ragaloon ñeme ma man yàlla ndax ba ngay mooy xamoon nga ne maa ngi lay gis waaye faale woo ma woon man yàlla tabaraka wa taala kon mbokk yi sunu aaya tey bu sunu saar bi di jeexee ginnaaw bu nu santee yàlla gërëm ko ci xéewal ni mu may at yépp ñu nekk ci suratu nisa est-ce que dafa ñu ci ñaari at ah kon da am nekk na at ak genn wàll kon ñu sant yàlla moom mu ñu may tey ñu fekkee saar bi mu jeex may nu xéewal tëralunu ah ba nu jeexal saar bi ci kàttanam ak mën-mënam nanu yàlla may nin ko jeexalee ñu jeexalaat yeneen yi sunu dars tey fii la yem asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bu fekkee am nay question